salaamaaleykum mbokk téléspectateur Mourchid bi Afia Afia dellu si na waat di waxtaan ak yéen ci émission yi mu leen daan dëkk saa su ne tey nag ñu ñëwoon tey pour fas yéene waxtaan ci les médicament de la rue ku nekk gis na ne jaaykatu garab yi ci mbedd mi bëri nañ fi xamuñu ndax jàng nañ wala jànguñu te defe naa ku jàng doo jaayee ci mbedd mi te it am na bëri na ay inconvénients yu ci nekk amul nag avantage mun naa wax ne amul avantage parce que kii koy jaay xamu ko. mais jaay moom la ci jublu tey nag ñu amoon yéene comme ni ñu leen ko daan waxee saa su nekk invité leen médecin yi pour ñu waxtaan ak yéen ci bépp feebar bu nekk ci jamono bi pour kenn ku ci nekk xam fan la ciy teg tànkam kenn ku ci nekk bu tawatee mu xam fan lay dem bu tawatilit mu xam fan lay jaar ba tawat mën koo bañ a di di faral di dal tey nag ñu invité suñu docteur docteur Mohamed Mohamed Latif Badji mu fas ñu yéene muy pharmacien mu fas ñu yéene waxtaan waxtaanal ci les médicament de la rue waaye xamal ñu tam lan mooy pharmacie xamal ñu tam fan la ñuy jaar ba nekk pharmacien xamal ñu tam ñoom ban droit lañ am pour war a mën a jaay garab xam naa dañ koy bàyyi mu nuyu askan bi suñu paree ñu dellu si ci plateau ci waxtaan bi. salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam ñuy nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñooy déglu émission bi ñu ngay seetaan ak mbokku internet yëpp. Mm-hmm. di nuyu suñu tata Aminta bi nga xamante ni. moo ñu invité tey ci plateau bi moom lañ fi nekkal. Mm-hmm. léegi ñoo ngi tudd Mouhamed Latif Badji nekk un pharmacien ñi nga xamante ni ci wàllu jàng li nga xamante ni moo jëm ci wàllu garab loolu la ñu jàng. Mm-hmm. di ko jàngee nag ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar. Mm-hmm. tey nag ñoo fi teewaloon tey suñu mbokk pharmacien yi ngir waxtaanee li nga xamante ni moo jëm ci wàllu les médicaments de la rue. waa kay ñu ngi lay jëfal Mouhamed xam naa dañuy dugg ci sujet bi dëgg-dëgg te moom mooy. Euh, ndax ñi nga xam ne ñooy jaay garab ci mbedd mi ay médecin lañ waaw wala déet. parce ah. ndax ay pharmacien lañ boobu waaw wala déet. ah loolu day. wala boog kan moo am droit garab. waaw bu dee ci wàllu kan moo am droit jaay garab loolu day hmm. daanaka norme yi nga xamante ni moo régir suñuy société. Hmm. dañ koo jël jox leng yépp ki nga xamante ni mooy pharmacien bi. Hmm. mooy ki nga xamante ni moom moo dem université jàng fa li nga xamante ni moo koy permettre muy mm-hmm. mun di joxe garab même bu dee daf koy joxe ci cadre wu njëkk mu doon lu gratuit wala mu mm-hmm. doon lu onéreux mm-hmm. mais moom pharmacien moom moo am droit joxe garab kon garab yooyu fan lañ ko war a jaayee ndax ci mbedd mi wala fan mooy bërëb bi nga xam ne euh, euh, régir nañ ko wax ne fii lañ war a jaayee garab waaw béréb yu ñu régir pour jaay garab du lenn lu dul ci pharmacie yi que ce soit mu doon pharmacie yu nga xamante ni mooy privé yi ñuy woowee officine yi nga xamante ni ñoom moom la nit ñi gën a xam bu dul pharmacie yi nga xamante ni ñoo nekk officine yi ñu nekk ci wàllu privé bi ñu ngay romb ñu gis pharmacie diw bu dul loolu mooy pharmacie yi bee yu nga xamante ni ñoo nekk ci biir hôpital yi mhm. daanaka foofu noonu daal lañ am droit joxe li nga xamante ni foofay loolay doon garab moo waa médicament la de yan inconvénient la am ci gën a que ci centre de santé yi wala ci hôpital yi mën nañ fa jaay ay médicaments IB mën nañ ko jaay itam ci pharmacie yi parce que loolu lañ digle ne foofu lañ war a jaayee garab léegi nag yan inconvénient moo am ci ki nga xam ne jaarul fi nga jaar di jaay garab ci mbedd bi. ah waaw inconvénient yi day bëri na ndax daanaka ki nga xamante ni yow nga bàyyi fi garab bi di jaar. ak fu ñuy jaayee garab bu normal nga wàcc ko foofu dem ci mbedd bi jënd fa garab romb benn taabal bu tegu rek nga jël garab bi jënd. Mm-hmm. mën nga faa tombeek garab bi nga xamante ni li nga soxla exactement mun faa nekk mhm. ndax foofu nekkul palaasu garab ndax mhm. garab yu fay nekk it saytuwuñ leen pour xam ndax am garab yu baax lam yu baaxul mhm. loolu inconvénient bu njëkk la beneen bi mën na laa julal ay gàllankoor ci sa wér yaram ndax mën na dolli problème yu nga xamante ni mu jëm ci wàllum gàllankooru wér yaram beneen bi moo di li nga koy def yow yaa ngi ci bi nga xamante ni say njaboot sax xëy na amaana mën nga leen a andil feebar yu nga xamante ni ci garab yooyu lay tàmbalee ndax daanaka booy xool ñëpp loolu la ñuy kaas moo di cadre inconvénient yi nga xamante ne ci la médicament yi nekk mën nañ laa jaay sax ba jaay la garab bu périmé waaw loolu loolu ci inconvénient yi la bokk te garab bu périmé moom dinañ ci ñëw ci kanam parce que ñu wax la garab bi dafa périmé xëy na nit ñi xamuñu luy garab bu périmé yow di nga ko xam après dinañ ci dugg comme ça nit ñi xam ne wax dëgg yàlla inconvénient yi bëri na trop trop trop léegi ban objectif lañu am ci waxtaanee thème bi parce que bi wax les médicaments d'anadu fent nañ ci way waxtaan nañ ci def nañ ci séminaire lu ne def nañ ko mais booy seet tey la gën a bari ci ci tali bi te ñoom dañuy mel ni ay médecins lañ léegi ñun ban objectif lañ am pour lii ñu war ko waxtaanee ak askan bi. waaw objectif bi day du lenn lu dul yeewaat askan wi soñjaat autorités yi pour ñuy bàyyiloo nit ñi xel ni lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram dafa sacré lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram dafa cher. Mm-hmm. ndax ki ci mbedd bi fekk fa dara jël ko mu foog ni garab la mhm. loolu jàllankoor yu mu koy julal bu paree ci état bi lay sonnaat moo tax objectif bi du leen lu dul yeewaat population bi ngir ñuy mën di dem ci centre de santé yi wala ci pharmacie yi yu leen gën a jege buñ soxlaa dara ñu wax leen seeni jàngoro mhm. wala bu ñu bëggee garab ñi dem ci mess ci kër docteur ba consulté wu buñ paree ñëw ci pharmacie bi pharmacie bi dérivé leen garab bi mhm. waaw xam naa objectif bu am solo la vraiment parce que bëgg nañ askan bi yëpp xam ne médicament yi ñuy jaay ci mbedd mi nekkul médicament yoo xam ne war nañ ko utiliser parce que ki nga xam ne moo koy jaay moom fi pharmacien bi jaar jaaru fa kon dafay jaay comme ni muy jaayee mango noonu lay jaayee ñëwal jënd li ma ci jaaxal mooy benn garab yi mun na faj ndigg mun na faj tànk lu ne loo ko laaj rek am na garab bu koy faj kon askan bi ñu bàyyi xel bu baax garab yi ci mbenn bi su baaxoon pharmacie du am su fekkoon dafay yëwanal ki feebar pharmacie du am kon ñu bàyyi ci xel bu baax ci inconvénient yi nga xam ne moom tudd na ko fi léegi euh, xam naa docteur parce que da ngeen jàng garab jàng ngeen ko ay at wax dëgg yàlla léegi bëgg nañ xam lan mooy médicament bu fekkee dafa ay composition ñu xam lii mooy médicament parce que tam war nañ différencier jaaykat bi ci mbedd mi ak ki nga xam ne moo ko jàng pour nit ñi mën a xam ne ci kii lañ war a jënd waaye waruñu jënd ci kële moo tax ñu bëgg a xam médicament ci boppam mooy lan ak lan moo ko constitué waaw bu dee ci wàllu mi ci wàllu définition médicament xëy na dañuy jël définition bi OMS joxe waaye dañ ciy jël comme mun nañ ci jël benn partie bi gën a gàtt rek moo di le médicament mm-hmm. est toute substance ou composition mm-hmm. bi nga xamante ni possède ay propriétés yu doon soit des propriétés yu nga xamante ni pour prévenir garab pour prévenir benn feebar la wala propriétés yu nga xamante ni pour faj feebar la mm-hmm. daanaka loolu mooy définition bi gën a simple par rapport ak mm-hmm. définition bi ñu mën a joxe ci mm-hmm. wàllu médicament li nga xamante ni boo ko jëlee am na benn substance wala composition bi ci nekk mën na laa préveniral ah, benn garab benn feebar wala mu faagaagal la feebar bi faj la ci waaw kon loolu mooy garab kon ki ko jàng moom moo xam luy substance yi parce que ay substance yu ñuy boole la te benn bu ci nekk xam nañ ban substance la war a àndal kon kooku moo war a jaay garab ki xam ne ay substance lañuy boole substance yi bu ñu ko boolee kat dina mën a faagaagal feebar bi nekk ci nit ki wala boog dina mën a prévenir li nga xam ne moo war a ñëw ci nit ki kon kooku mooy pharmacien bi kon loolu mooy médicament ñu wax ne ñu fàttali ne nag nag ñoom dañuy def seen yitte ci defar garab Euh, docteur yi def seen yitte ci jàng feebar yi xam naka la ñuy dimbalee ñi nga xam ne ñooy malade waaye kenn rek mooy faj mu yàlla suñu borom subhanahu wa taala kon ñoom dañ def seen yitte kon yitte yooyu tamit yàlla def participation bu am solo moom mooy mooy ki nga xam ne mooy wéral ki nga xam ne mooy aji feebar bi euh, garab yi dafa bëri docteur bëri na torop am na ay tableau am na ay classification buggoon nañu xam garab benn bu ci nekk ci man tableau la nekk maanaam classification des médicaments ñu xam ko ci lenn pour gën a fësal seen xereñ ci wàllu garab. waaw garab yi bu dee ci wàllu classification mun nañ koo classifier selon ay liste wala ñu classifier ko mm. selon ay tableau bu dee classification selon ay liste mun nañu am liste un mm. nga xamante ni moo yor lépp luy garab yu ñuy woowee ay garabu toxique mm-hmm. ci la ñuy nekk mm-hmm. bu dee ci liste deux bi dina am ay garab toxique mais moins toxique par rapport ak list bële mm-hmm. am na tamit benn liste bu ñu woowee les stupéfiants mm-hmm. yooyu mooy garab yi nga xamante ni boo ko utiliser comme genre dorog lay doon wàllu mm-hmm. dépendance yi bu dee ci wàllu tableau yi am na tableau A tableau ak tableau mooy ñett tableau yu am ci cadre garab est-ce que yëpp tableau yooyu par exemple tableau A B C que yëpp boo demee te yoroo ordonnance war nañ la ko jaay déedéet loolu nekk ndax selon loi loi yi nga xamante ni ñoo régir pharmacie dafa am garab yu nga xamante ni moom pharmacien bi ñun pharmacien ci jëm boppam am nañ droit délivrer ko noonu sans ordonnance am na mhm. garab yu nga xamante ni amuñu droit délivrer ko mhm. sans ordonnance mhm. te it même bu dee ordonnance ñëw na sax am na ci yoo xamante ni tant que bi nekkul benn ordonnance bi nga xam ne dafa carrément spécifique amul benn spécialis spécialité nekkul ordonnance spécialisation amuñu droit jox la garab boobu noonu waaw pour fu la rek ñoom ñoo war a jaay garab ñoom ñoo xam garab parce que garab bi dañ ko classé ci ay tableau te tableau yooyu ABC benn bu ci nekk waruñu la ko jaay te joxe woo ordonnance boo joxee ordonnance sax nee na la am na garab bu ne yu nekk ci biir yu spécifique yoo xam ne du yomb sax ñu jaay la ko noonu kon garab nekk na loo xam ne am na danger am na ay inconvénients ci ki nga xam ne xamu ko jël ko ci ki nga xam ne daf koy jaay te xamu ko ci moom sax am na ci ay inconvénients ndax bu jëlee ki nga xam ne mooy nit ki bëgg rek wér ñëw ne ko ndax am nga garab sàngam mu jaay ko su ko naanee mën na ci am loraange te loraange googu moom dina ci am part de responsabilité moo tax ñu ba ñu war a bàyyi suñu euh, pharmaciens yi ñoom ñi xam garab jàng ko ñu mun ko jaay askan bi ñu feebar ñu mën a wér mën a dellu ci seen yitte ak seen sago waa docteur yéen da ngeen di ban temps ngeen di def pour mën a nekk pharmacien ndax da ngay xëy rek mu nekk sa option wala dafa am yoon booy jaar ba ñu délivrer la lijaasa ba nga mun a nekk pharmacien. waaw bu dee yoon bi nga xamante ni ci ngay jaar pour nekk pharmacien xëy na di nga jàng ba am sa bag mhm. te déjà faa nga am benn baccalauréat scientifique. scientifique boo amee sa baccalauréat scientifique. Mhm. après ci la cadre choix wu option yi ñëw. bu dee cadre choix wu option yi. di nga gis benn option bu ñu bind pharmacie. Mhm. option boobu noonu daanaka faculté de médecine bu Cheikh Anta Diop kese ka amoon waaye jamono ji Thiès sax am nañ ci te waa Thiès sax seeni bos daanaka ña fa nekk daanaka cinq ans rek lañ amagum pour l'instant mooy première promotion mooy première promotion bi mhm. moo di boo duggee biir fac ñëw université Cheikh Anta Diop di fa mhm. jàng li nga xamante ni moo jëm ci wàllu pharmacie mhm. jàng bi dina durer cinq ans ci wàllu li nga xamante ni moom ngay def ci année yi nga xamante ni moom ngay jàng biir écrit di nga jàng sa licence 1 jàng sa licence 2 licence 3 master 1 mhm. ba master 2 mhm. boo paree sa master 2 la nga soog a dugg sa année de thèse mooy sixième année bi ci biir année de thèse bi moom mooy doon année de thèse beeg recherche bi ci ngay def say recherche parfois di nga gis ñuy dépassé sixième année bi dem ba septième année par rapport ak seen recherche fu muy nekk mais minimum minimum pour doon pharmacien di nga jàng six ans six ans ah yombul yombul de ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbedd mi ñi nga xam ne ñooy pharmaciens yi te ñoom ñu am droit ci jaay garab dinañ jàng 6 ans après seen bac scientifique waaw dina jàng 6 ans après bac scientifique parce que garab bi ngay jaay da ko war a xam normalement composition yi da nga ko war a xam danga war a xam lan lay faj xam fan nga koy denc naka nga koy utiliser lépp danga ko war a xam kon ñooñu ñoo am droit pour jaay garab mais jë jël table rek teg ci table teg sa garab yomb na trop waaye ñu bàyyi xel ne ñooñu jànguñu ko kon ñu moytandiku jaay bi ñuy jaay bi ñu koy jaay ci mbedd mi mais ñiy jënd tam ñu bàyyi xel ne ñooñu jànguñu garab xamuñu ko pour bañ a am problème ñu moytandiku jënd bi ñu koy jënd ci ñoom euh, docteur daanaka bu ngeen defee 6 ans ba pare euh, pare ngeen seen théorie def seen septième année def seen ay recherche recherche mën na dem un an mën dem deux ans pour ngeen gën a wóoral seen seen jàng def seen thèse ñu délivrer leen li nga xam ne moom mooy seen doctorat période boobu li ngeen di xalaat rek mooy ut seen pharmacie bopp parce que déjà nekk dugg ngeen ci cadre privé bi te da ngeen di ut seen pharmacie bopp fas yéene yéen tamit yëwanalal askan bi garab yi nga xam ne moom moo nekk ci pharmacie bi te mooy ñu jaay leen ko donte la la ngeen ci am bëriwul ndax am na lu ñu ci xam mm-hmm. léegi euh, temps boobu ngay def pour am sa pharmacie est-ce que fooy jaar pour am ko est-ce que métti na est-ce que gaaw na est-ce que am na ay inconvénients yi ci am wala am na ay avantages yu ci am yu wax askan bi waaw xëy na loolu sax daanaka benn genre mun nañ koo tuddee benn genre mythe la wala benn mm-hmm. genre légende bi nga xamante ni mm-hmm. askan bi jot na koo am ci ñi nga xamante ni ñooy jàng lu jëm ci wàllu garab wàllu pharmacie. Mm-hmm. ndax ñu bëri jàpp nañ boo jàngee ba def sa thèse ba soutenir ba pare rek. sur le coup benn un an deux ans di nga am sa pharmacie bopp or que loolu benn mythe la parce que c'est mhm. tout à fait difficile wala c'est tout à fait bon li nga xamante ni nekkul ci ay choses yi nga xamante ni yu simple ci ngay jotee tijji pharmacie mhm. ndax daanaka boo xasee ba pare sa jàng ba pare sa soutenance pour tijji pharmacie bi rek amaan na ay charte yoo war a remplir wala amaan na tamit ay dépôt de dossier yoo war a def bu lay mën a permettre nga mën a tijji dossiers yi mhm. te daanaka ci biir dépôt de dossier yooyu noonu bu dee ci cadre jeune pharmacien yi xëy na jamono ji ak lu ARP ñëw agence de réglementation pharmaceutique bi ñoom xëy na peut-être xaw na tane tuuti mhm. par rapport ak bu njëkk mhm. mais dafa am benn loi bi fi nekk bu ñu tuddee loi de l'ancienneté par rapport ak booy déposé dossier. donc cadre quota yooyu noonu ngay mën a am ci cadre déposer dossier ak dossier yi ngay war di déposé mhm. njëkk tees bi daf cee bokk teel a tees bi daf ci am wàll. moo tax cadre ancienneté bi daf cee nekk. moo tax pour mhm. wàllu tijji dossier pour wàllu tijji pharmacie moom cadre boobu noonu. doon na li nga xamante ni nekkul da ngay pare rek tijji ko sur la ko mhm. waaye nag yàlla mën na def xéewal. ba nga pare toog benn deux ans déposé rek yàlla jox la site. yàlla jàppale la nga am site pour d'accord waaye li tax ñu posé question bi dama bugg rek ñiy jaay garab ci mbedd bi ñu bàyyi ci xel ndax ñoom am nañ lijaasa seen lijaasa am nañ seen doctorat mu leew leen waaye waaye yombul ci ñoom rek ñu teg seen taab teg garab yi ci kaw ndax bu ñu jëloon taabal teg ko teg garab rek li ñu jàng yor seen lijaasa dootul am dootul am benn xorom ndax dañ ci sonn 6 ans 7 ans 8 ans soog mën a lijjën am seen lijaasa teeku seen loxo ba pare defaat ay démarches te boo defee démarche ba yegg mën nañ téye sa dossier parce que am na ku la fi jiitu am na ku la gën a ancien mu ñooñu bu ñu leen lijjantee ba pare ñu soog la lijjanti nga am sa seet soo a mën a am sa pharmacie wala léeg-léeg nga def ay année sax di liggéey ci yeneen structure ba mu bu ay année ngay soog a xalaat kat ubbi sa pharmacie kon nag euh, metti na ci ñoom ñi ko jàng kon warul yomb ci yéen parce que yéen jàngu leen ko te mën ngeen lor ñi nga xam ne ñoom ñooy jënd garab yi kon ngeen bàyyi xel ne ñii dañoo sonn lool pour mën a am lijaasa boobu sonn lool pour mën tijji pharmacie bi kon nit ñi yor seen ordonnance li gën ci ñoom mooy dem ci ñi nga xam ne ñoo ko jàng pour ñu jënd ko pour mën a jël seen euh, garab ci li nga xam ne moo jaare yoon te docteur bi prescrire leen ko noonu euh, docteur inconvénient médicament de la rue parce que war nañ dugg nag dëgg-dëgg ci les médicaments de la rue yan inconvénient nga ñu ci mën a indi le temps ñuy dugg ci danger yi nga xam ne moo am ci euh, médicament yi waaw ci inconvénients yi day bëri na xanaa peut-être ñu jël benn chiffre rek. li mhm. nga xamante ni OMS joxe woon nañ ko ci at yi at ci ginnaaw. ay côté 2017 mhm. 2020 yooyu noonu. moo di chaque année dinañ am presque benn huit cent mille africains yi nga xamante ni. Mhm. médicaments de la rue ñoo leen di faagaagal seen i bakkan ci loolu lay jaaree. ci cadre médicaments de la rue muy wane ni inconvénients yi bëri na. ndax boo gisee rek cadre li nga xamante ni moom la tuddee décès lu toll ni huit cent mille. xam nga ni loolu bëri na ginnaaw loolu di nga gis it ñi nga xamante ni ci médicament de la rue ci leen jëlee yenn feebar yi nga xamante ni ay feebar yu nga xamante ne ce sont des maladies nga xam ne ay maladies chroniques di nga gis ñi si jëlee ay insuffisance rénale gis ñi si jëlee insuffisance hépatique ak yeneen ak yeneen yu nga xamante ni lépp médicament de la rue yi ñoo koy waral ah doy na waar de doy na waar mais OMS lan la OMS lan la wax ci médicament de la rue parce que tamit wax dëgg yàlla lutte bi ñoom ci lañ bokk waroon nañ jàpp bu baax pour ñu xam naka la ñuy def ba ba ñu ñu wàññi ko parce que jamono joo xëyee bu ñu ko waxee ba ramasse ko ba kii da ngay jekki rek ñu reprendre day mel ni ay borom doole ñoo nekk ci gannaaw garab yi ñëwaat ñu commencé di ko jaayaat ci witi léeg-léeg ngay wër garab doo ko am sax nga dem fenn fekk ko mu yomb nga jënd dem te warul woon mën a demee ci kii bu ñu génnee 2017. Mhm. ñu ngi doon wax ni jamono ji cadre médicament de la rue wala yenn médicament yi nga xamante ni ay contrefaçon yi c'est que ça a été remplacé wàllu tur bi dañ ko woowee comme des médicament de qualité inférieure daanaka léegi daanaka presque noonu lañ ko woowee des médicament ah mhm. de qualité inférieure voilà médicament de qualité inférieure pour wala ne qualité bi nekku ci ñoom it ñu ngi ciy def seen jéego yu war mhm. ngir loolu dañ ginnaaw jéego yu nga xamante ni ñoom la ci organisation mondial yi def des na jéego yi nga xamante ni yooyu la état bi war di def. wala jéego yi nga xamante ni yooyu la ñi nga xamante ni ñoo yor wàllu dëkk bi wàllu wàllu pharmacie beeg yu fi jëm di def. Mhm. yooyu tamit ñu ngi ko ciy def waaye xëy na dafa doon li nga xamante ni daanaka population bi ñoo ci war a njëkk jàpp. bu ci ah. population bi jàppee état bi jàpp ci pharmaciens yi ñoom it jàpp ci. Mhm. ngir mu mën a jëm kanam. Mhm. sànq ci sa biir wax dama dégg ngay wax euh, garab yi mën na périmer garabu périmer nuñ koy xamee waaw selon norme yu ñuy defaree garab. Mhm. commencement ci recherche bi dem ba ci fabrication beeg yu fi jëm ba délivrance bi yëpp. Mhm. pharmacien moo yor li nga xamante ni mooy naataango moom moo moo war a gérer loolu loolu yëpp. Mhm. donc médicament bu ci nekk buñ ko defaree. am na date bi nga xamante ni ci lañ ko defar am na numéro de lot buñ ko defaree mm-hmm. te numéro de bu ci nekk par rapport ak date buñ ko defar par mm-hmm. rapport ak composant yu nekk ci biir mm-hmm. am na date bi nga xamante ni ci la ñuy bind ni médicament bi dafa war a périm ndax au delà de ça de cette am na ci yenn composant yi nga xamante ni ñoo ngi ci biir garab bi xëy na amaana seeni activité dootul demee noonu ñi nga xamante ni ñoo ngi ci biir garab wala xëy na amaana dinañu jur ay jàll gàllankoor par rapport ak changement di nga gis ñi nga xamante ni composant yu ci biir dina changer couleur garab bi wala composant yu ci biir dina changer xetu garab beeg mm-hmm. yu ci jëm mm-hmm. moo tax ñu naan médicament bi dafa périmé mm-hmm. kon nag euh, mbokk yi téléspectateurs yi médicament bu périmé moom kenn waru ko utiliser te ki ne ci biti di jaay garab te jàngul li nga xam ne moom la pharmacien bi jàng du sentir ne médicament bi mi ngi périmé wala mun na ko effacer sax jaay la ko nga wax ko mu ne la lu baax la kon li gën yi ci yéen téléspectateurs yi mooy ñu bàyyi ñi nga xam ne ñooy jaay garab yi ci mbedd mi parce que tamit du lu war ci ñoom parce que xamuñu garab bi te garab bi périmé mën na la indil beneen défaillance ci sa biir organisme parce que ni mu wax sànq ci garab yi nga xam ne dañ koy jël li muy indi ci ay ay ay décès dafa bëri macha allah ba nga xam ne ba pare li muy yokk ci jàngoro wala yokk ko ci problème ci nit ki dafa bëri parce que ku am insuffisance rénale am insuffisance hépatique ñu ne ci ci médicament yi mu doon jël te ci mbedd mi la ko jëlee la ko la ko yi mbedd mi la ko jëndee ci yooyu la ko jëlee loolu war na mën a tax yéen population bi ngeen bàyyi xel bu baax ne jënd garab ci mbedd mi warul li war mooy dem ci pharmacien bi jënd sa garab faju ni nga xam ne noonu nga war a fajoo euh, danger wax nañ léegi ci danger euh, yi nga xam ne moo nekk ci médicament yi périmés mais danger médicaments yi nga xam ne dañ ko étaler un peu partout parce que dañu gis ne boo duggee ci pharmacie dañ def ay étalage yu am solo mais tableau bu nekk am na fu mu nekk ci pharmacie bi mm-hmm. mais léeg-léeg nga dem ci benn côté mu sedd Euh, pharmacie bi dañ ko dañ ko dañ ko tëj wërngal ko tëj ko mu am bunt am palanteer mm-hmm. am ventilo ñu ventilo ko bu mu baax sàmm garab yi chaque matin ñu fomp ko ba mu set étalé waat ko mm-hmm. mais kii nga xam ne moo nekk ci mbedd mi deful loolu mm-hmm. taabalam rek lay jël teg ko fee bu naaj bi ñëwee naaj bi jeexee ker gi ñëwaat mu continuer léegi nag loolu ban danger la am médicament yooyu même bu dee médicament bu baax waaw danger bi de moo di ci li nga xamante ni mooy garab boo gis am na ci benn ambiance bi nga xamante ni moom lañ ko war a denc am na ci yenn garab yi nga xamante ni ñoom ci ambiance buñ koy denc dafa respecter benn chaine bi ñuy tuddee chaîne de froid mooy garab bi que ce soit buñ ko defaree buñ koy livrer buñ koy distribuer mhm. ñëw di ko andi biir pharmacie bi ndax pharmaciens yi ñoom bu ñuy jëli seen garab dañ koy jëlee ci distributeurs yi mhm. distributeurs yi xëy na ñoom ñoo koy jëli jee ci labo yu ci jëm mais ñoom it benn bu ci nekk garab boobu noonu par rapport ak yoon bu muy jaar dina respecter benn ambiance bi nga xamante ni ambiance boobu la war a nekkee pour ay composant mu mën a valable pour ay composant mu mën a dox comme tey jii buñ ci tuddee cadre chaîne de froid bi dina doon benn climat bi nga xamante ni entre deux ak huit degré lay doon le plus souvent mhm. dina am yenn garab yi nga xamante seen conservation ci période boobu la ci climat boobu la war a nekkee comme exemple bi ñu ci jëlee ay yenn collyre yi mhm. comme exemple lacoma collyre ñi nga xamante ni d'habitude ñu mhm. da nga ko a denc fu sedd te diggante entre deux ak huit degré mhm. donc par rapport ak fi mu jóge ñëw ba agsi ci biir pharmacie bi wala même bu dul tax buñ jëlee bu ñu waxul sax ci cadre pharmacie bi mais ñi nga xamante ñooy nekk ci mbedd bi buñ utiliser genre garab yooyu noonu nga xamante action yooyu naaj bi di am. ci mhm. genre garab yooyu noonu wala genre garab yi nga xamante ni dans les normes dañ ko war a denc ci chaîne de froid. ñoom sax lu ñu yor ñun mun duñ ko tuddee garab. ndax xam nañ ni nekkul li nga xamante ni lu baax la. Mhm. loolu mooy loolu carrément pharmacien bi moo di moom lépp luy supervisionné ci wàllu garab. Mhm. que ce soit recherche bi fabrication beeg délivrance beeg distribution beeg yu jëm yëpp. pharmacien bi daf cee war a dugal loxoom ngir mën a. permettre mën a saytu mhm. yi nga xamante ni ñooy composant yu composé garab bi waaye mën a saytu it garab bi fan la jëm ci nit ki ak lan la war a def ci nit ki mhm, mhm. waaw parce que tamit euh, paracétamol bi nga jël def ko ci naaj bi ay weer parce que bu ñu jëlee boîte bu mag ay weer la fay nekk naaj bi di ko yàq te yëgoo ne naaj bi mu ngi koy yàq nga pare dugal ko ci kees yi boo pare génnewaat ko ci naaj bi te ñu ne la paracétamol bi kat fa nga ko war a denc dafa war a xaw a sedd am na degré boo ko war a dencee dencoo ko kon nañ moytandiku médicament yi nga xam ne moom la jënd ci mbedd parce que bu di ko docteur waxee léegi bu fekkee ne déglu nañ ko bu baax ak nit loo su am na war nga mën a dugg ci pharmacie bi nga jënd li nga xam ne mooy sa médicament beneen bi ci des euh, ci wàllu médicament générique yi bëggoon nañ tam nga ñëw ci tuuti parce que am na ñoo xam ne gëm nañ ko am na xam ne gëmuñu ko am na ñoo xam ne wóolu nañ ko am na ñoo xam ne wóoluwuñu ko ah bëggoon nañ tamit ñu ñu ñu ñëw ci tuuti parce que defe naa ne médicament yi ak euh, yi générique yi ak yeneen médicaments yi euh, ak principe actif yi benn lañu mais lan moo tax ñu indi les médicaments génériques te pharmacie bi mi ngi fi. waaw daanaka ci biir pharmacie yi sax. dañ ko gis ay médicaments yi ñu tuddee médicaments CH wala médicaments génériques yi. Mhm. mais daanaka benn lay doon par rapport ak bëre. Mm-hmm. lu ñuy tuddee médicament ci biir dafa am lu ñuy tuddee princeps mooy mm-hmm. principe actif bi mooy li nga xamante ni moom moo actif ci médicament bi mm-hmm. moom muy andi li nga xamante ni moom mooy faj ci médicament bi li nga xamante ni médicament bi rôle bi muy def ci biir yaram bi principe actif boobu noonu moo koy ni mooy gunge principe actif bi moom mooy bokk ci wàllu composition bu garab bi par rapport ak ni ñu koy defaree léegi par rapport ak spécialité yi dañuy gis ni pàcc même ci pays yu Afrique yi sax waaye dañuy gis ci monde bi dans le nord mhm. dans en général doole yemul mhm. ci par rapport ak wàllu xaalis mhm. donc yoon la labo yi ñëw de temps en temps jël ci benn garab comme cadre paracétamol tey boo ci jëlee am na ay spécialité yu bëri am na tamit générique maanaam lu ñu tuddee wàllu CH tamit am na fi spécialité yooyu noonu comme tey boo jëlee benn genre paracétamol boo duggee ci biir FRL boo jëlee FRLgan paracétamol la mhm. boo jëlee doliprane mhm. paracétamol la boo jëlee panadol mhm. même chose boo jëlee cétamine même chose ak yeneen ak yeneen mais labo yu koy defar ñoo bokkul labo yu koy defar ñàkk bokk boobu noonu moo tax tamit prix yi mën naa ute kenn ki dina ñëw ne man damay defar ngir néew di doole yi donc moom bu defaree dina ko tuddee turam ah. waaye it li nga xamante ni ci lay jar ci moom mooy gën a moins cher par rapport ak ki nga xamante ni moo ko jëkk defar labo bi njëkk defar garab bi norme bi may na ko mën na jaay garab bi moom kese mooy jaay ba benn temps bien défini bu temps boobu jàllee nag ñeneen ñi soo a ñëw commencé defar li nga xamante ne mooy générique mhm. mais spécialité princeps bi bu ñëwee mhm. moom am na benn temps bien défini mhm. bi nga xamante ne ci lay utiliser garab bi moom moom kese mooy am droit defar garab bi jaay bu ñëw ñu pare nag ba temps am jeex ñeneen ñi soog a ñëw mën mu mën cee bokk àndaat ak moom waaw euh, léegi nag euh, médicament de la rue yi kenn bàyyi xel loolu générique bi ça n'a rien à voir ak médicament de laa rue te ñi nga xam ne gëmuñu générique bi ñu docteur wax na ko léegi niñ defaree yële lañ ko defaree mais Samba dafa defar bindu turam Demba defar bindu turam Fatou ñoo ne man kat damay defar pour néew ju doole ji wàññi prime am na yooyu fu muy jaar ndax booy xool médicament yi dem ci euh, centre de santé yeeg yenn euh, si hôpitaux yi jaay générique mm-hmm. du jóge ci seen pharmacie ñoom mais ci pharmacie bu mag ba lay jóge nga xam ne moom moo koy jëli indi ko ñooñu am droit jaay ko kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax waaye docteur prescripteur yi nga xam ne jànguñu est-ce que jaaxaloo la ak prescripteur ak ñi nga xam ne ñooy jaay garab te jànguñu jàngoo garab xamoo mais dañ lay da ngay dem jënd rek jaay ma buy faj bopp paracétamol lañ ci gën a xam wala ñokket wala yeneen ñëw teg ko ñu ba lan moo leen mën a fekk ci loolu nga xam ne ñu ngi koy def. waaw xëy na ci cadre boobu noonu xëy lu ñuy woowee prescripteur sax daanaka. pharmacien bi en tant que tel duñ ko wax ni yow prescripteur mhm. mais dañ la naan ni yow da ngay délivrer médicament ndax pharmacien bi moom moo am droit délivrer médicament bi gratuit ou léegi bu delloo ci wàllu prescripteur yi d'habitude le plus souvent day doon médecin yi mhm. wala spécialiste yi ñu jëm ñi nga xamante ni ñoom ñooy doon prescripteurs yi parce que ñoom ñooy dem jàng ji lu jëm ci wàllu jàngoro yi mhm. ñooy prescrire médicament mais pharmacien bi moom bu ñëwee dafay délivrer mhm. par mën nañoo ñëw laaj ko conseil mu génnee garab bi tamit délivrer par rapport ak symptômes yi ñu koy jox mais ki nga xamante ni deful école xamul université wala bu àggee ba bac bu àggee ba terminal def baccalauréat am ci lay yem mm-hmm. nga ñëw jàkkaarloo moom ne ko man gis nga mu yor taabulam xamoo yan garab a ci nekk ndax dèjà sax d'habitude seeni garab duñ bokk tur ak garab yi nga xam ne ñoo nekk bi faris nga ñëw ne ko man sama bopp bi day métti wala nga ñëw ne ko dama am jàngoro bii ak lii ak li ak lii mu ne la kaay am naa lu lay faj nga ne ko mm-hmm. waaw lan la mu ne la jëlal garab yi boo demee nga jël benn suba benn ngoon <laughs> loolu boo ko defee yow miy dem ci moom daanaka. yaa njëkk am toog ut kayit sotti la ci nombre de comprimé laxas jaay la. bëri na bëri na hmm. bëri na moom kay daanaka ba ñuy xale ba léegi ñu ngi koy gis. ba ñuy xale ba léegi ñu ngi koy gis. parce que garab ku ko xamul waroo ko jox euh, presque nit ki li gën a bon sax mooy nit ki yor médicament am ordonnance am naan ko nit feebar nga ne ko am jëlal ci sama bii dama desal loolu sax jaaduwul. parce que bari na lu ko askan bi nit ñi di ko def mhm. waaw bari na ñu koy def bii dama ko doon naan docteur ko bindoon waaye baax na ci man am naanal loolu sax nañ ko moytu mhm. kenn ku feebar ku nekk ak la lay faj mhm. même bu ngeen niroo garab tant que demoo ci médecin bi waruloo am droit jël bi nga xam ne moo fajoon kii même boo jënd jee ba ñëw mu wóor la ne yàq yéen ko niroo noonu la war a demee parce que ki la ko prescrire moom moo ko xam kon ñu mooy tund ko bu baax médicaments yi ñu jaay ci mbedd bi étalage yi ñu koy teg baaxul naaj baa nga fa waaye ñoom ñi koy jaay jànguñu ko xamuñu garab yi xamuñu nu ñuy defee conservation yi xamuñu principe actif yi ak ak ak euh, li nga xam ne moom lañ jaxase ba mu nekk garab kon loolu ku ko xamul ni ñuy defaree garab amuloo droit prescrire garab bi nit ki mm-hmm. te docteur moo war a prescrire garab nit ki pour mu jël ko pharmacien bi moom moo ko wala délivrer euh, docteur yan problème ngeen di rencontre du moom ba yan euh, ci seen pharmacie au Sénégal dañu gis ne benn pharmacien bu nekk benn pharmacie la war a am te am na yenn pays yoo xam ne benn pharmacien mën na am ay pharmacie dama xamul nag au niveau du Sénégal wala yéen yéen a ko mënul wala euh, au niveau du Sénégal mënu fi am. waaw bu dee par rapport ak normes yi benn pharmacien bu nekk benn pharmacie. ku tij pharmacien bu dem defi si dépôt disponibilité de site am ministère bi lancé ne am na site yu disponible. Mhm. gars yi dem njëkkante ji dem defi ji seeni dépôt de dossier ñu ci jëm beneen dépôt ba site yi génn mhm. kuñ ci octroyé site ba nga mhm. tijji sa pharmacie mhm. ci boobu nga war a nekk waaye it am nga droit am dépôt ok am lu ñuy tuddee dépôt mais dépôt yi sax dafa am nombre bi nga ci am droit am ginnaaw dépôt beeg pharmacie bi nga am amoo droit tijjaat beneen pharmacie xanaa kay nga jaay sa pharmacie bu dee da nga jaay sa pharmacie disponibilité des sites bu amatee boo demaatee pour dépôt sax. jënd am beneen pour utaat beneen pharmacie. Mhm. faa nga wane acte buy wane ni yow mii sa pharmacie bi da nga koo jaay. faa nga wane li nga xamante ni day wane ni yow pharmacie bi nga yoroon da nga jaay pour mën a amaat ci site yu bees yi. mais mais boo def boo amee sa dépôt par exemple nga nekk fu mel ni Kédougou wala fu sori. Mhm. di nga sa dépôt di nga mën a ravitailler yeneen pharmacie yi nga xam ne moo nekk sa sa sa wet. non non non non pas cadre boobu sax mais li mais boo yoree sa pharmacie. dépôt bi lan lay jëriñ en quelque sorte. dépôt bi day jëriñ en quelque sorte que ni am na ci yenn région yi. Mhm. am na ci yenn région yi nga xamante ni daanaka lu ñuy gis pharmacie bëriwul te dépôt bi sax nekkul garab yëpp lay am. yëpp mhm. ay nombre limité de garab lay am te nekkul tamit tableau yëpp lay am. Mhm. am na tableau yi nga xamante ni dépôt bi. waru ko am tableau yi waru ko am waaw conservation kon daal mën nga am dépôt mais mënoo am deux pharmacie benn rek nga mën a am par rapport ak sa sa site. mais yan problème ngeen di rencontrer ci phénomène bi nga xam ne ci la ñuy waxtaan mooy les médicaments de la rue. waaw médicaments de la rue yi de li muy causé fléau bi nga xamante ni moom lay andi daanaka bëri na ci mm. dëkk bi. daanaka ba ci dernier kii ñu génn ñu ngi xo état bi mu ngi doon xool à ce que naka la ñuy criminaliser. li nga xamante ni mooy médicament de la rue yi nga xamante ni day trafic illicite bi yëpp day doon quelque chose bi nga xam ne dafay criminaliser amoon na fi benn concept bu fi jaar cadre Medicrime ci cadre 2020 2021 yi doon gis dégg nañ fi ay saisie de médicaments mm-hmm. énormes yi ci jëm mais duñ ko topp duñ ko topp yooyu noonu yëpp jotoon na fay am yi nga mm-hmm. xamante ni ay jéego yi nga xamante ni gars yi jot nañ koo def ba ci agence réglementation bi nga xamante ni gars la taxawaloon nañ ko sax nga mm. xamante ni mu doonoon ay jéego ci yi nga mm. xamante ni xëy na peut-être ñi ngi ñëw ngir jàppale dooleel pharmacien yi mm-hmm. mais mais ginnaaw médicament de la rue yi sax am na beneen concept tamit bi nga xamante ni jamono ji xëy na mi ngi lor sénégalais mooy cadre TikTok da ngay dugg ci TikTok bi mm-hmm. gis nit ne la man bi ma jëlee garab bi nii ak nii ak nii la ma def ci saa si garab boobu dafay manqué ci dëkk bi ndax ku ñëw ci dëkk bi moom lay wër jamono ji médicament de la rue ñu ngi def fléau waaye tamit TikTok bi moom itamit ñëw na commencé waat def fléau te moom daanaka li muy def ak ñiy dem jënd ji médicament de la rue daanaka presque benn la ndax ku dugg ne la man garab bi bu ma ko jëlee nii ak nii la ma def yow nga ñëw jël ko te xamoon ni kii bi mu demee yan symptôme la amoon wala kii bi mu demee la moo taxoon ñu bindal ko garab bi mhm. yow nga ñëw nga jël la même chose bu la jëlalee gàllankoor kan mooy sonn ah ah te gàllankoor rek lay gàllankoor rek lay parce que garab ku ko xamul waroo ko joxe garab boo xamul sax yow mi naan waroo ko naan tant que waxuñu la lii lii lay faj wala nga dem ci médecin bi mu wax la te euh, TikTok bi forme médicament de la rue la ñuy def parce que li nga mënul génnee jaay ko ci tali bi nga jaay ko ci TikTok bi parce que nit ñi tamit lu bees rek lañ bëgg mm-hmm. génn na fii naa ko jël kon askan bi ñu moytu loolu parce que garab ki ko xam ki ko xam moo ko mun a jaay ki xam nu ñu ko defaree moo mun a xam lan lay faj donte la yàlla mooy wéral mais léeg nga dugal ci sa biir loo xam ne mënul génn ndax biir kaso boo xam ne am na porte d'entrée mais amul porte de sortie mhm. boo ci dugalee médicament balaa muy génnee feneen dina yàq li mu war a yàq ci sa biir te bu boobaa du ma ne du am beneen médicament bu la faj mais benaa beneen di ñëw nga am inconvénient bu xam ne day des ci yow resté ci yow doo ko mun faj mhm. kon ñu mooy tundu ko médicament de la rue mooy tundu ko médicament yi ñuy jaarale ci TikTok bi parce que forme de vente la te ñooñu duñu ay pharmacien duñu ay médecin te ki nga xam ne mooy pharmacien daf ko jàng ni lañ ko waxee sànq kon moom moo am droit ci délivrer ko moom moo am droit tamit ci ci ci ci wax nit ki tam mu jël ko moom moo am droit tam ci jaay ko daal beneen bi ci des acheteur bi ki nga xam ne mooy jënd moom tam am na ci risque parce que tamit askan bi dañu war a xàmmee lan la war a def ak lu ñu warul def mhm. kooku yan risque la am mooy acheteur bi ki nga xam ne day dem rek jënd waaw ki nga xamante ni day dem rek jënd comme cadre li nga xamante ni mooy phénomène bu ñu tudd sànq mooy cadre ci société bi di nga gis ki nga xamante ni demba moom dafa jënd garab gi ndax lii moo ko doon métti mu ñëw ci pharmacie bi wala mu dem ci docteur bi ne ko lii ak lii mooy métti docteur bi prescrire ko garab bi wala mu ñëw ci pharmacien bi pharmacien bi conseillé ko garab bi ne ko jëlal garab gi dina la fajal sa jàngoro bi moom mu toog ba benn moment benn paate ñëw moom mi tamit mu sentir ni ne ko man de lii daf mooy métti mhm. jotu ko sax xam exactement lan moo waral loolu mu ñëw ne ko demal ci garab demal ci pharmacie bi nga jënd garab bi nga ñëw mm-hmm. donc yow mi acheteur bi ñëw jënd ci garab booy jënd garab boo mun mënti jënd daanaka da nga war a xam garab bi exactement lan lay def ci wala garab bi yan ak lan lay faj mm-hmm. mais fii Sénégal dañoo am tendance à que li ñuy tuddee automédication waaw surtout dañuy ñëw rek ne jaama garab bi génnaat dem seen yoon mm-hmm. léegi nag rôle la ci pharmacien bi moom mu war a mën a conscientiser wala mën a delloowaat xelu ki nga xamante ni mooy jël garab bi tey jii nit dina ñëw ci pharmacie bi comme cadre li nga xamante ni li nga xamante ni lu ëpp fréquent la sax nit ki ñëw ne rek jaam amoxicilline ah. daanaka loolu moom hmm. Sénégal dafay kii jaam amoxicilline loolu mu ñëw rek ne la jaam bactérie or que parfois ñu koy jël hmm. utilisation buñ koy utiliser nekkul li nga xamante ni mooy utilisation bi nga xam ne moom la ñu waroon utiliser garab hmm. mais ñoom dañ koy jël rek pour utiliser ko noonu exemple di nga gis kenn ku feebar xaw am yenn enrhumé yu ci jëm dem ba hôpital ñi bindal ko benn ordonnance bi nga xamante ni ci biir dina am amoxiline amaat beneen garab amaat mhm. beneen garab mais moom dafay seetlu ni comme par exemple ki nga xam ne dafa soj ñu bind ko ci benn garab contre la rub mhm. ak benn amoxiline nag yu ci jëm mhm. moom mu toog ba benn moment affaire bi arrêté kenn ñëw ne ko man damaa soj mu ne ko demal jëndi amoxicillin kuux day ñëw ci pharmacie bi rek ne ko jaayam amoxicillin te borom pharmacie bi tamit wala pas sax borom pharmacie mais pharmacien bi nekk ci biir pharmacie bu jëlul temps wu laajte ko li ngay dawee amoxicillin bi lan la xëy na kooku dina ko jël mu julal ko yeneen gàllankoor yi nga mm. xamante ni te du ko faj moo tax acheteur bi moom it bu ñëwee ci biir pharmacie bi na laajte par rapport ak li nga xamante ne mm-hmm. loolu soxla mm-hmm. garab bi muy ut lan lay njëriñ mm-hmm. nan lay def ci yaram bi wala même bu du mën a laajte sax lan lay def ci yaram mais na laajte lan lay njariñ ngir mu mën a moytu li nga xamante ni mooy gàllankoor wala conséquence yi nga xamante ni garab yi am na ko mm-hmm. ndax kat dañ koy wax moo di tout médicament à des risques te daanaka ñun boo nekkee fag di jàng sax dañ la koy wax c'est la mm-hmm. dose qui fait le poison garab bu ci nekk dafa am posologie bi nga war a utiliser dafa am dose bi xamante ni moom la sa yaram attan ci garab beeg moom la mm-hmm. yaram bi attanul donc boo ñëwee dépasser dose bi wala boo ñëwee utiliser ko à des fins yi nga xamante ni bokkut ak loolu lañ ko war a utiliser dina la jural li nga xamante ni ay gàllankoor la. Mm-hmm. ndax tout médicament daanaka presque mook tout médicament à des risques. à des risques waaw. Mm-hmm. waaw kon nag euh, dégg nañ li docteur wax médicament yëpp am risque kon nag ki la koy jox te jàng ko nañ ko moytu ki nga xam ne nag moo nekk ci pharmacie bi xam médicament bu ci nekk la ci risque ba xam naka lañ koy utiliser def naa dem ci kooku moo gën est-ce que yéen am ngeen droit par exemple man ma socc rek wala ma grippé taayee dem parce que nit ñi dañ taayee dem hôpital ñu bëri dañ taayee faju ci mm-hmm. ne naa dem ci pharmacien bi est-ce que yéen am non ngeen prescrire ko. ngeen prescrire ko médicament yi mu war a jël ba pare jaay ko est-ce que am ngeen ci droit. waaw cadre boobu noonu xëy na du tudd du nekk duñ ko tuddee cadre prescription. Mhm. mais juste cadre délivrance lay tudd. moom la ñuy tuddee conseil. li ngay wax ni daanaka moom la tuddee le conseil en pharmacie. Mhm. daanaka nit ki dina ñëw. avec des symptômes yi nga xamante ne moom la ñëw yow bu mm-hmm. ñëwee yow mi pharmacien bi nekk ci biir mm-hmm. pas sax vendeur en pharmacie bi nekk ci biir pharmacie bi wala yeneen auxiliaire en pharmacie bi nekk ci biir pharmacie mais yow la pharmacien en tant que tel mm-hmm. ci lay ñëw ne dama soxla un dama soxla ñëw dafa ñëw pour demander conseil wala dafa ñëw pour soxla un conseil pharmaceutique donc moom bu ñëwee di nga ko accueillir dalal ko jox ko ci benn climat bi nga xamante ne dina la mën a wax yenn symptômes yi nga xamante ne moom lay faj léegi nag le pharmacien ci cadre conseil en officine moom daanaka traitement symptomatique la ëpp lu muy def par rapport ak symptômes yi nga koy wax mhm. ci la lay kii woon conseil mais juste ci biir conseil bi tamit dina am droit yi nga dina am dafa am droit parce que dafa am garab yoo nga xamante ni pharmacien bi amul droit conseiller ko ndax mhm. amul droit génne ko ndax garab yooyu mhm. saa sécurité ay spécialiste ñoo ko génne parce que spécialiste bi dina la defar des analyses précis mhm. yu lay génneeloo garab bi mhm. moo tax buy bind ordonnance bi ordonnance boobu mooy génn mais ku ñëw ne la dama soxla conseil mhm. comme par exemple mën nga toog pharmacie nit ki ñëw ne la kat man je suis wala ah. nit ki ñëw ne la man je suis grippé di nga ko laaj par rapport ak symptômes yi nga xamante ni moom lay yëg ci yaram bi yan ak yan la pour nga mën a situé wu carrément par rapport moom daanaka lu ñuy wax ni rek même bu dul cadre sénégalais nit ñi dañoo tàmm Mhm. ñi nga xamante ni ñooy seen docteur boobu di nga gis ku xaw a yëg dara tuuti sax dugg biir google bi ñëw dugg biir google bi ne mhm. man symptôme yi la am google bi ne ko lii mu ñëw dugg biir pharmacie laa ci garab bi <laughs> donc bu ñëwee pharmacien bi dina ko dalal mhm. jox ko nopp mettre ko ci benn climat bi nga xamante ni dina ko wax exact moom dina mën a jël temps wax ko exactement lan ak lan moo ko dal léegi par rapport ak lim koy wax su dee ci prérogative bu pharmacien bi la ci lim koy wax noonu pharmacien bi mën na ko cee traité. Mhm. mën na ko cee délivrer benn médicament. Mhm. pharmacien bi dina jël temps mhm. jox ko garab yi nga xamante ni. war naa mën a saafara jàngoro bi nga xamante ni moom la ko nit ki ñëw laaj ci conseil. ndax daanaka pharmacien mooy spécialiste. bi ci wàllu santé bi gën a jege population yi mm-hmm. Mm-hmm. moom la population bi gën a fonk te moom it moom gën a jege population yi mm-hmm. buñ soxlaa dara pour laajte ci pharmacien bi la ñuy ñëw laaj buñ soxlaa yenn garab yi dañuy tayal a dem ba hôpital ndax hôpital rang yi fa am ak ñoom seen am na ci yenn jàngoro yi nga xamante ni sax boo ñëwee ci biir pharmacie bi dinañ la ko saafaral moo tax boo amee yenn jàngoro yi. Mhm. jotal nga gis spécialiste. Mhm. mu pharmacien bi nga jëm. Mhm. jëlal sa temps nga dem ci poste de santé bi wala ci centre de santé bi. nga wax leen sa feebar lii ak lii. est-ce que loolu gënul yomb ñu dem ci mbedd bi jëndi parce que yow da am loola metti tey amoo xaalis bu bari bul dem ci ñi étalé ci biti mais bu ñëwee ci yéen yéen ko mën a orienté. waaw loolu da moo gën a yomb. moo gën a wóor. a a ndax xëy na boo xalaatee ni su ma demee ci fu ñuy jaay médicament de la rue mhm. jël fa li nga xamante ni mooy wax leen sama jàngoro ñu jël garab bi faj ma xëy na amaana mhm. yow xamoo exactement conséquences yi nga xamante ni acte yu ngay def xamoo tamit danga nga doon wër lu yomb mhm. xamoo ni fii nga jëm mën na laa yokkal li nga mën na laa yokkal dépense. te boo ñëwee dañuy jàpp ni sax ñoom daanaka sénégalais dañoo jàpp ni boo ñëwee ci pharmacie rek dañ cee jaay garab yu cher mais du demeewul noonu. Mhm. pharmacie bi boo fi ñëwee par rapport ak sa doole fi mu toll. mën nañ la jaay mën nañ li nga xamante ni moo mhm. lay faj. Mhm. waaye dañ la koy jox ci cadre anam yu wóor ci cadre anam yu leer. mu leer leen ni ñoom ñii kat lii ñu lay jox du la du la julal gàllankoor ëllëg. cadre sûreté boobu noonu cadre confiance boobu noonu moo tax nit ñi nit ñi ñuy war di dem ci spécialiste yi ah, lépp lu jëm ci wàllu médicament ñu wax ko wala ñu ñàkk koo wax le mm-hmm. pharmacien mm-hmm. est spécialiste du ah. médicament waaw téléspectateurs yi dégg ngeen docteur li mu fi wax pharmacie bi pharmacien bi moom mooy spécialité wu médicament bi lu tax parce que moom moo xam li nekk ci médicament bi kon lu ma demee ci étalage bi ci ci mbedd mi di jënd ci moodu garab te man 200 laay wala 100 francs sam bopp di métti su ma demee ci moom wax li ma dal dina la jaay sa médicament ci 100 francs yooyu wala ci 200 yooyu parce que am nañu ñoom tamit seen forme bu ñu koy jaayee bu ñu yëwanalee askan bi te dinañ denc garab yi fu ñu ko war a denc xam nañ garab yi te xam nañ bu la ko joxee posologie ban lañ lay wax maanaam naka nga ko war a jëlee ñoom xam nañ ko te ki nga xam ne moo nekk ci mbedd bi xamul posologie bi daf lay wax rek jëlee ko nii parce que léeg-léeg benn garab dinañ la ci faj ndigg dinañ la ci faj bopp dinañ la ci faj yaram lu nekk dinañ ko faj ci benn garab kon ñu moytu médicament de la rue te li nga xam ne moom la ñuy waxtaan ak ka yor taabal ja di jaay garab ci mbedd bi suñ duggee ci pharmacien bi suñ ko waxee seen jàng seen soxla seen jàngoro lu mu tuuti tuuti ak seen wecc lu mu toll mën nañ ko cee jaay conseiller ko wax ko lu mu koy jëlee ba beneen te yàlla mën na ko ci defal jàmm kon docteur dañuy bàyyi rek nga nga def quelques recommandations par rapport ak sa collègue yi par rapport ak pharmacie yi parce que tamit pharmacie bu ci nekk am na nu ñu mën a wax ak yow ñu gën a jege population bi gën a yombal population bi nga defaat recommandation par rapport ak les médicaments de la waaw xëy na yenn ci kii rek moo di ci cadre population bi laay njëkkee moo di bu leen jàpp ni pharmacien bi daf cee daf fee nekk ngir duufal poosam wala ngir diisal poosam mhm. pharmacien bi daf fee nekk ngir yéen bu demee jàng ji lu jëm ci wàllu garab ngir population bee tax. Mhm. ndax acteur la ci li ñuy tuddee santé publique. donc moom pharmacien bi loolu mu dem jàng ji jàng ko ngir kenn lu dul ngir population bi lu dul ngir jëriñ population bi ndax daanaka booy def sa thèse sa biir serment sax di nga wax ni yow mi kat di nga jëriñ population bi te da leen ni njëriñ njëriñ bi nga xamante ni dina leen julal njëriñ du leen mhm. julal ay gàllankoor donc yoon la yow mi population bi nga wóolu li nga xamante ni moom mooy doon pharmacien bi mm-hmm. ndax pharmacien bi mooy acteuru médicament moom mooy spécialiste médicament te mooy acteuru santé publique bi la gën a jege mm-hmm. boo amee sa jàngooro mm-hmm. jubalal sa pharmacie bi nga laajte pharmacien bi nga wax ko lan ak lan ngay jëkk bu dee ci prérogative am la moom mën na laa jox ay garab dina la ne jëlal garab yi garab yi boo ko jëlee dina saafara sa jàngoro. bu dee li nga xamante ni dafay laajte gis spécialiste wala dafay laajte des des consultations bien approfondies moom dina la yabal ne la demal ci poste de santé wala demal ci ñii nga dem def ji consultation yu approfondie ndax mhm. loolu moo gën a wóor te mhm. loolu mooy gën a yaxanal sa poche. Mhm. bu leen di xalaat ni su ma demee ci mbedd bi rek jël fa garab sama poche dina yax dina dina xaw a oyof tuuti. waaye it bu leen di xalaat ni su ma ñëwee ci pharmacie bi xëy na dañ may xoolee yenn bët yeeg yooyu noonu loolu mënut a demee noonu. Mm-hmm. pharmacie bi am na benn espace bi nga xamante ni boo fa demee dinañ la déglu dinañ la dalal. dinañ la conseil loo yor si xaalis mën la dinañ saafara sa jàngoro. loo yor si xaalis boo ko waxee. Mm-hmm. par rapport ak li ngay faj par rapport ak li nga soxla. Mm-hmm. dinañ la génneel garab bi nga xamante ni dina la mën a faj. ci wàllu xëy na pharmacien yi ñu fàttali leen nii rek ni. role bi nga xamante ni moom la pharmacien am ci population bi mhm. rôle bi nga xamante ni moom la pharmacien bi am ci garab bi mhm. ak rôle bi nga xamante ni moom la pharmacien bi am ci monde bi am ci àdduna bi mhm. te mu doon li nga xamante ni un métier noble la ndax dañ ko wax muy ki nga xamante ni dafay dem jàng lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram mhm. rek dafa noble lu jëm ci mhm. wàllu wéer gu yaram mhm. di saafara jàngoor nit loolu rek dafa noble donc da doon métier bi nga xamante ni dañ ko war a jox cër doon li nga xamante ni dañ ko war a fonk ndax saafaral jàngoro nit kenn xamul ñaata yiw ci nekk ndax doon na li nga xamante ni lu baax la doon na li nga xamante ni lu ñëpp naaw la donc pharmacien yi nañuy takkaat seen ndigg di gën a gëstuwaat ci wàllu mhm, autoformation bi gën a tamit bàyyi xel population bi mhm. xam ni ñoom ñoo fi nekkal population bi xam ni ñoom it mhm. dañ fay nekk ngir jàppale population bi di jaajëfal it xëy na yenn ci ñi nga xamante ni acteurs yi nga xamante ni ñoo ngi def ay jéego ci li nga xamante ni mooy lite lu jëm ci wàllu médicament de la yeeg ñoom si ñu ci jëm di jaajëfalit yenn acteurs yi nga xamante ni sénégalais yi nga xamante ni ñoo ngi fexe Sénégal am benn autosuffisance médicamenteuse yi nga xamante ni xëy na peut-être fii ak ci kanam dina ñëw. Mhm. waaw daanaka xëy na loolu la woon. waaw conseil ban nga ma mën a joxal ñi nga xam ne ñooy jaay garab parce que ñoom tam defe naa seen nopp booy na ci dañ leen koy toujours te te terewul dañ koy jaay léegi yëpp ban conseil nga leen mën a jox. waaw ñi jaay yi nga xamante ni moom la ñuy tuddee médicament de la xëy na lenn rek lañ leen di fàttali moo di nit ki moom mooy def dara. Mm-hmm. defal loo xam mm-hmm. booy wax waxal la wóor mm-hmm. te booy wax tamit waxal li la xam ndax boo ñëwee jàkkaarloo nit ki ne ko garab bii dina faj lii ak lii ak lii te yow mu leer la ni yow lii ngay wax xamoo ci dara jàngoo ko jàngoo ko wóoru la garab bi xam li ngay li ngay joxe yow xamoo sax exactement lan ak lan boo nekk ci biir xamoo yan gàllankoor lay lay jural nit ki na bàyyi xel nii ak lu mënti demee mhm. bakkanu nit dafa foor ak lu mënti demee bakkanu nit dafa foor te mhm. ay te it ak lu mënti demee bés dina ñëw nga war a taxaw jàkkaarloog dëgg par rapport ak li nga xamante ni mooy acte yi nga daan def donc yoon la lépp looy mënti def nga di ci mhm. jubal di ci dëggal te it ci leeral waaw docteur jaajëf euh, defe naa téléspectateurs yi dégg ngeen li nga xam ne moom la fi docteur wax ci médicament de la rue yéen sama mbokk yi nga xam ne yéen nekk ci tali bi di jaay garab bàyyi leen xel ne li muy rey ci nit ci par at dafa bëri te wax na ko léegi huit cent mille personnes su ma juumul lay rey par at OMS wax ko kon loolu rek war na mën a tax ngeen dem ut leneen lu ngeen jaay ñu bàyyi ak pharmaciens yi ñoom ñu jaay garab parce que ñoom ñoo ko xam parce que garab nag dafa am yu ko composé yooyu ko composé ki ko xam rek moo ko mën a jaay nit ki parce que bu koy jaay nit ki dina xam lan la koy jaay te bu koy jaay nit ki dina am këyit gu mandargaal ne loolu lañ ko bindal kon ñu bàyyi xel ne médicament de la rue li muy faagaagal bari na mais ñu moytu wax dëgg yàlla euh, di koy jaay moytu ko bu baax te ñi koy jënd ñoom ñoo gën a jar a waxal parce que ki def étalage di jaay kiy jënd war na xam ndax war na ko jënd wala waru ko jënd kon ki nga xam ne dafa am lu koy metti bu dee bopp sax na ko jaral mu dem ba ci pharmacie pharmacie pharmacie bi ko gën a jege parce que defe naa ne gox boo dugg am na pharmacie mm-hmm. Dakar gox boo dugg àll bi sax gox boo dugg am na pharmacie dangay ngay jeego rek dugg ci biir pharmacie bi lu ñuy jënd lu mu néew néew boo demee nga jënd ko foofu dina la wóor ne kii li mu la jaay périmé wul li mu la jaay denc na ko denc bu jaar yoon parce que denc bu jaar yoon bokk na ci li nga xam ne mooy assuré médicament te pharmacie bi denc na ko denc bu jaar yoon mu jaay ñu ko ñu am ci suñu afiya donte la yàlla nag moom mooy wéral mais ñu jël li nga xam ne lu jaadu la ci suñu biir organisme pour wér boobu mën a fekk ci euh, kattan yàlla mën la may wér nga mën a dund comme il faut docteur xam naa dañ lay bàyyi ak kàddu gi nga def sa ramassé def sa benn ramassé bu bu ndaw rek ñu soog a dugg ci dernier point bi te mooy tàggatoo bi waaw xëy na bu delloo ci wàllu ramassage bu ndaw rek dañuy fàttaliwaat juste ni <coughs> pharmacien bi mooy spécialiste médicament bi mm-hmm. donc lu jëm ci wàllu jàng pharmacie bi lu jëm ci wàllu jàng garab bi moom moo ko def moo xam exactement garab bi bu duggee ci biir yaram bi interaction bi muy am mm-hmm. ak yaram bi ak bu duggee ci biir yaram bi naka la naka lay yaram beeg yu jëm yooyu noonu yëpp pharmacien bi moo ko xam mm-hmm. pharmacien bi it moo xamit ni garab bi bu duggee am na effet indésirable yu fi nekk wala am na interaction médicamenteuse yi nga xamante ni mën na koo jur bu àndee yeneen i garab mm-hmm. am na tamit li nga xamante ni ay contre indication yi nga xamante ni ñii waruñoo jël garab garab bu ci nekk am na contre indication yi nga xamante ni buñ ko waxee mooy ñii mënuñoo jël garab bii ndax mhm. garab bii buñ ko jëlee daf leen di jural lii ak lii ak lii mhm. effet indésirable moom moo lay wan ni ñii boo ko jëlee garab bi mën na laa jural lii ak lii donc pharmacien moom moo xam lépp lu jëm ci wàllu garab mhm. donc buñ demee bay wóolu kenn ci wàllu garab pharmacie la war a doon pharmacien bi la war a doon buñ demee bay wóolu kenn ci lu jëm ci wàllu garab pharmacien bi lay war a doon donc ñun que ce soit jeunes yi que ce soit suñu parent yi que soit population bi en général bu ñu amee suñuy jàngoro na ñuy jël suñuy temps jubal ci pharmacie bi wala ñu jël suñu temps jubal ci poste de santé bi. Mm-hmm. de wax fa suñuy jàngoro ngir ñu mun ñu ko fajal. na ñuy moytu ci li nga xamante ni moo jëm ci médicament de la rue moytu it tiktok yeeg yu ci jëm. Mm-hmm. tikaaru dégg naa ni diw garab bi la jël rek. baa ma jël ko dina ma faj. na mm-hmm. nañuy moytu loolu te xam ni kat. lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram dafa foor te bakkan dafa foor teel a jóg ci sa bopp ci li nga xamante ni mooy teel a dem fi wóor mhm. moo gën mujjee fa teel dem fi moo gën mujjee ndax teel a lijjanti sa bopp mhm. ci li nga xamante ni boo fa demee dinañ la ko jox ci cadre norme de sécurité bien définie moo ne mhm. nga dem fenn fi nga xamante ni dañ lay jox lu lay lor nga bëgg ñëwaat dawaat ci ginnaaw ndax doo xam ñaata nga ciy ñàkk ci xaalis te doo xamit tamit naka ngay loree sa yaram mm-hmm. donc loolu ñu ciy bàyyi xel bu baax a baax di soñjaat suñu autorités yi rek ci cadre li nga xamante ni moo jëm ci lutte contre médicament de la rue di leen wax ci nañ ci gën a takkaat seen ah, tubéy mm-hmm. waal cadre duwaan yeeg cadre agence réglementation yeeg yu ci mm-hmm. jëm yëpp ñu leen di bàyyiloo xel yooyu noonu di bàyyiloo xelit pharmacien yi ci cadre boobu noonu ñoom tamit nañu porter combat bi nañ gën a porter combat bi. Mm-hmm. gaa ñu ngi ci mais nañ gën a. porter combat boobu mm-hmm. noonu rek. Mm-hmm. li nga xamante ni xëy na mooy lu ñuy tuddee autosuffisance bi tamit ñi ñaan suñu mbokk pharmaciens yi tamit ñi gën di yokk formation bi. ngir li nga xamante ni Sénégal fii ak at yu ci jëm at yu ñu jëm mu doon benn dëkk bi nga xamante ni garab ñuy yor sax du doonati ay garab importé mais majeure partie garab yi ñu koy defaree bii Sénégal daanaka. Teranga Pharma joxe nañ devant joxe nañ mm-hmm. lancement bi ñoom itamit mm-hmm. ñu leen di jaajëfal mm-hmm. ci li nga xamante ni dañuy produire des produits yi nga xam ne ce sont des produits purement sénégalais loolu tamit mu doon li nga xamante ni dina jural askan bi njëriñ ndax ñoom xam nañ ni Sénégal dina gën a yomb xam nañ sénégalais lu ñuy dund donc buñ produire garab garab yi day gën a yomb donc ñu leen di jaajëfal bu baax tey bàyyiloo xel bokk téléspectateurs yi nii médicament moom pharmacien bay baro waa docteur ñu jaajëfal la ñu bàyyi la nga tàggu tàggu askan bi. waaw di jaajëfalaat suñu tataa bu ñu invité woon tey di ko wax ni invitation bi am na solo te it di jaajëfal mbokku téléspectateurs yi ñu doon déglu. Mm-hmm. di leen jéggal di leen jéggalu it su amee ay dëng-dëng. Mm-hmm. xëy na kiiwee ko mais xam-xam bee ko mayewul <laughs> noonu nag su jubee it ñi xam ni daanaka ay barke barke kilifa la ak barke yàlla ñi mm. xamante ni ñu xamee ko noonu la incha allah. waaw docteur ñu jaajëfal la bu baax a baax ci euh, parce que woote nga wuy si euh, yombul te biñ la contacter yàggul te wuy si nga ñu macha allah xam-xam bi am na solo ñu ñaanal la yàlla defal la tawféex defal la mm. afiya te may la pharmacie bu am solo dépp bu am solo macha allah yàlla may la nga jàppale askan bi bu baax a baax a baax a baax xam naa loolu moo nekkoon li Afia indi woon ñu fàttali rek euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbedd mi di jaay garab ñu wax ne médicament de la rue nekk na loo xam ne jaadawul ci organisme nekk na loo xam ne pharmaciens yi déglewuñu ko ki nga xam ne mooy jaay garab ci mbedd mi jàngu ko jàngul garab xamul lu nekk ci garab mënul prescrire garab dosage yi ñu war a def pour nit ki jël garab xamu ko pharmacien bi moo ko xam moo ko jàng 7 ans 8 pour soog mën a am droit bi pharmacien parce que xam na lu ñuy defaree garab xam na composants yi nekk ci garab xam na lu ñuy prescrire garab kon lu ñu lu ñu yàkkamti yàkkamti bu ñu jënd garab yi ci mbedd mi mais nañ daagoo ci pharmacie bi jënd ko ndax médicament de la rue dafay rey 800000 habitants euh, par par par par an te loolu bëri na te loolu euh, waxuma rey bi rek. mais ñi nga xam ne daf leen di rey en moo gën a bëri te mooy ñi nga xam ne daf leen di defal insuffisance hépatique insuffisance cardiaque insuffisance rénale yooyu yëpp mun nañ ko jëlee ci li nga xam ne mooy médicament de la kon ñu wax ne ñi ngi jaay garab yi ñu ngi sànq askan bi te dañ ciy jëlee bàkkaar te bàkkaar yàlla rek moo ko mën a baal ki nga xam ne mooy jaam bi xamul ne am na bàkkaar kon ñu ñaan leen ngeen uti leneen lu ngeen def di ci mën a gis bopp te bàyyi médicament yi ak pharmaciens yi parce que ñoo ko jàng pour ñoom ñu jaay ko ñu ngi jaajëfal euh, képp koo xam ne mi ngi toog ci écran bi ñu seetaan di leen ñaanal yàlla mu may leen jàmm may leen wér Afia mi ngi leen di ñaanal euh, yéen ñëpp ngeen am gudd fan di ñaanal yàlla ñëpp wér di ñaan yàlla réew mi yàlla def fi jàmm ngeen baal ñu ba beneen émission ci beneen ay bés incha allah